waaw lii daal benn faayda la boo xam ne dañ ko fekk ci kannaasi Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu mu wax ne faayidatun fi taqlimil azfar liy njëriñ la ci ci lelle ay we mu ne man qallamaha yowma sabti xaraja minhu kullu maradin wa daxala fi badanihi alchifaau mu ne képp ku lelli say we bésu samedi incha allahu taala bépp jàngoro dana génn ci yow saafara dugg ci sa yaram wa man qallamaha yowma al ahadi xaraja minhu l ghina wa daxala alayhi faqr mu ne képp ku dagg nag sa ay we ku leen lelli bésu dimanche am koom dara génn ci yow ñàkk dugg ci yow yàlla na ci yàlla mos. amiin yaa rabbi. man qallamaha yowma al isnayni xaraja minhu l faqru wa daxala alayhi l ghina mu ne ku dagg ay weyam ba si altine euh, ñàkk dana génn ci moom am koom dugg ci moom wa man qallamaha yowma thulathaai xaraja minhu shifaau wa daxala fihi l marad mu ne képp ko xam ne nag dagg nga say we ba su talaata bu boobaa saafara dana génn ci yow feebar dugg ci yow mm-hmm. wa man qallamaha yowma al arbiaay xaraja minhu l wa daxala fihi l ba su àllarba jax-jaxal dana génn ci yow ngëm yàlla dugg ci sa xol maanaam dagg ay we ba si àllarba dana tax dégg nga am ngëm yàlla bu yokk hmm. man qallamaha yowm alxamisi xaraja minhu lxirsu wa daxala fi xayru mu ne képp koo xam ne nag dagg na ay weexam ba si alxames xër dana génn ci moom dégg nga aw yow dugg ci moom hmm. man qallamaha yowm aljumuati xaraja minhu ljahru wa daxala fihi lilmu mu ne waaye képp koo xam ne yaa ngi dagg sa ay weex ba si àjjuma réer dana génn ci yow xam-xam dugg ci yow. macha allah alhamdulilah jërëjëf jazakallah léegi nag ma dolli leen ci. Mhm. leneen loo xam ne. Mhm. mooy bu ñuy dagg wee naka lañ ko war a dagg. dëgg la. juróomi yi ci loxo bi baaraam bu ne dafa am ci mhm. arab. bi xinsar lañ koy wax. mooy baaraam mu sànq lañ. bi ci topp ñu koy wax binsar. bii ñu di ko wax wuspa bii ñu di ko wax sababatu bii ñu di ko wax ibham mhm. léegi nag juróomi baaraam yooyu xawaa xawaa bisin mhm. moom la ñuy daggee loxo nday joor ak tànk nday mhm. aw aw xa sa bin moom la ñuy daggee loxo càmmoñ maanaam weyi loxoy càmmoñ ak weyi tànk càmmoñ. léegi mën ngaa baamtu mën ngaa baamtu naka la ñuy daggee euh, weewu loxo. tënk bi. ni mhm. ñuy daggee weewu loxo nday joor weyi loxo yi nday joor ak weyi tànk nday joor ñoo niroo. Mhm. weewu loxo càmmoñ ak weewu tànk càmmoñ ñoo niroo ñu daggee. Mhm. tënk bi bu dee ci loxo nday joor bi la mooy xawaa bisin Mhm. bu dee ci bu càmmoñ bi mooy aw xasalin loolu mooy lan mhm. boo commencé da ngay jël baaraamu sànqalañ bi baaraam bu ndaw bi moom nga jëkk a dagg waaw ay weyam mhm. nga tëb bi ci topp nga dem ci troisième bi ci digg nga dagg ay weyam waaw nga tëb bi ci topp muy quatrième bi nga dem ci cinquième bi muy baaraam bu mag bi nga dagg ko boo daggee foofu nga dellusiwaat nag ci deuxième baaraam bi topp ci bu ndaw bi nga dagg wey Mm-hmm. boo paree nga del siwaat ndul yëkkat si moom ndeyjoor bi noonu nga koy doxal waaw macha allah bamtu léegi nag maanaa mbaaraam bu ndaw bii di sànqaleñ bi moom ngay njëkk a dindi mm-hmm. nga tëb bi ci top nga ñëw ci troisième bi mm-hmm. nga dagg ko nga tëb quatrième bi nga ñëw ci cinquième bi nga dagg ko allah boo paree nga ñëwaat ci deuxième bi nga daggu ko. Mhm. nga dem ci quatrième bi nga dagg ko. macha allah loxo ndeyjoor ak tànk ndeyjoor yëpp noonu la ñuy bindee ay weer. macha allah bu dee nag loxo càmmoñ bi la moom aw xasabin moom mooy tënk bi dangay jël baaraamu day bi mhm. moom ngay jëkk a dindi. waaw nga tëb deuxième bi encore. Mhm. nga ñëw di troisième bi nga dindi. nga tëb. quatrième bi nga dem ci cinquième bi muy baaraamu sànqaleñ bi nga dindi ko mm-hmm. mm-hmm. boo paree nga ñëwaat ci baaraamu sànnikaay bi mm-hmm. nga dindi ko boo paree nga ñëw ci baaraamu ñeenteel nga dindi ko macha allah nii nga koy dindee ci loxo ndeyjoor ak loxo càmm macha allah tànk ndeyjoor ak tànk càmm macha allah leeroon nañ jërëjëf wéy itam boo ko daggee da nga koy suul macha allah te nit dagg ay weyam te fekk nekk ci laab ndax bépp cër bu jógee ci doomu aadama dañ ko jëllo siwaat ci moom macha allah alhamdulilah boobaa nag bu fekkente ne cër booba muy jógee ci moom laabut buñ ko delloo siwaatee ñàkk laab boobu pencum yàlla man hmm. na mooy day mel ni luy xesen ci sa yaram hmm. moo tax dañ bëgg booy wattu na fekk yaa ngi laab hmm. amee woo janaaba li gën sax mooy fekk yaa ngi ànd ak jàpp ما شاء الله allah macha allah. ñu ne nag képp kuy suuf say wee ko boole ci benn bërëb sa njaboot day dajaloo ci benn bërëb. bu koy tasaare nag boobaa sa njaboot dañuy tasaare. macha yàlla barkeel.